nga xam ne ñoom ñooy sàmmkat yi ak euh, ñi nga xam ne aussi ay éleveur lañu ñooñu euh, xam nañu euh, dajale nañ seen jur war a ñëw pour jaay mais nag aussi dañoo wax suñu mbokk yi tamit nañu moytuñu xool bu baax li ñuy def parce que manifestation yi passé aussi boo leen boo seetloo manifestation yooyu dafa nekk manifestation yoo xam ne yi ni mu doxee jaaduwul parce que am na ay sàcc ay boutique di dajj ay banque di birile ay oto dégg nga rey ay nit loolu moom mosuñu ko gis fii Sénégal looloo tax nag ñu wax aussi éleveurs yi tamit que nañu organiser wu aussi ñu ñëw ndànk-ndànk mais aussi li ci gën mooy nañu installé wu ci ci grande masse yi nga xam ne tey comme ay sew xay ay sànjar ak yeneen marché yi dégg nga ñi nga xam ne am nañu fi place aussi ci ville bi nañu ñëw ci ville yi mais aussi nañu seetlu bu baax la ñuy def